xam nga problème mu taximaan ak cag-cag yi donc taximaan yi ñoom yàgg nañ di ko kaas lu yàgg-yàgg mais xam nga dafa am lu am mooy am réew bu organisé buñ ci nekkee donc nga xam ni état moo nekk ci bopp ba lépp lu am dañ ko war a organiser man loolu moo ci sama gis-gis parce que tey du caagi ni dëkk bi amul liggéey rek ku waay jug rek dem jënd sa moto commencé di cag-cag su ko defee nag day gàllankoor ñeneen ndax boo xoolee taximaan yi transporteurs yi ñoom dañuy man du ma taximaan mais ñoom dañuy fay impôt di fay droit de stationnement di fay taxe donc état su gisee ni tey am na ay ndaw yu jukk yor seen xaalis bëgg jënd ay moto di ci liggéey état nag moo war a jug organiser wu nee na na nii lañ war a doxalee su boobaa da ngeen di fay impôt garage bi ngeen war a yebbee fii ak fii ngeen war a yebbee lu ko mooy loolu nag anarchie mooy daal di am dañuy départ fii bu ñu xëyee borom moto yi taxaw arrêt taximaan yëpp taximaan yi jug ñu commencé di mbëkkante ak te loolu moom réew mu organisé moom dees koy wattandiku waaw loolu moom laa laa ci doon sama xalaat. taxi yàngoo yi miinu ma noonu mais bu may xool par rapport ak euh, trafic bi dakaar ni mel kuy wax dëgg rek te yàlla tax donc cag-cag mu am nañ fi njëriñ moom. maa gaa am nañ fi njariñ moom ndax boo xoolee man mi aussi dama leen di soxla lu bëree bari bëri sax ndax dakaar xat na te aussi deux yi aussi gis nga pour déplacement bi day yomb daal dina jàppandal ci liggéey bi loolu mu am na ci nag waaye nag du raison que ñu bàyyi anarchie bi noonu lu waaye jug rek euh, def loolu moo ci sama xalaat. suñu moto yi moom lañ am lu ñu suturloo ci la ñuy dund te si la ñu bëgg a teralee suñu njaboot incha allah buñ sañoon nag état bi jàppale lañu bu baax wutal ñu ay solution parce que son nañ torop ci tali bi waaw buñ sañoon nag état bi par exemple mu wut benn solution boo xamante ne dinañ ñu wutal ay xàmmeekaay par exemple ñu jox ñu ay carte yoo xamante ne policiers yi suñu arrêté dina xam ne ñii kat dañuy daan seen doole ñii caaxaan taxu leen jóg ay cag lañ voilà même bu dee dañuy fay genre ay taxes sax chaque mois wala chaque semaine d'accord nañ ci loolu euh, en plus tamit lu ñu gën a métti ci tali bi mooy taximaan yi du ñu may dara il suffit ñu gis la yow nga nekk cag-cag di daan sa doole rek dañ lay buntu xatal ci tali bi mbëkk la wala ñu lay coincé te mooy loolu daal dañoo nekk en danger suñ sañoon ñu jàppale ñu bu baax. ñun xataluñu kenn. ñun tooñu ñu waaw dañuy daan suñ doole rek ñoom buñ ko tegee si yoon ñun tam ñu teg ko si yoon tali bi yaatu na tali bi xatul de xol yee xat bu ñu yaatalee xoti xol yi rek ñëpp dem. simaan yi lu ma am lu ma leen di wax mooy nañ ñu dimbali rek te xam ne fii nit ku nekk sa wërsëg rek ngay lekk si àdduna bi te xam ne nu mu tuddati sax wërsëg du naaje daal fum la fekk foo nekk fa la lay fekk. waaw ah, mais eh, xam nga on dans un pays boo xamante ne bii nag aussi il faut que nit ñi liggéey boo xoolee fi mu ne nii toutes les jeunes là dans ce pays mënuñu fi nekk ah defuñu dara yaa ngi dégg bon li ñu mën a def mooy def càq-càq moo ñeneen ñi nga xam ne Jakarta lañ mën a def ñu def Jakarta lu dëgg loolu c'est c'est mënuñu mënul ñàkk taximaan yi aussi il faut que ñu comprendre que ne am na ci ñeneen sociétés yoo xam ne ñu ngi ñëw commencé di di di di di di créer eh, nouveauté ci affaire transport affaire taxi et tout ça là il faut que ñoom aussi ñu jëm ko accepter parce que jamono bi moo ko laaj léegi il faut que par exemple bon man ce que je demande au ministre du transport mooy mu euh, réglementer euh, tout ce qui est transport bi na ko réglementer rek kenn ku nekk jël wàllam auparavant bu njëkk taxi yi dañ da seddee taxi compteur mais léegi taxi compteur amatul kon taxi compteur kay bu amulee moo mais moo kalandoo rek parce que tax compteur moo war a am ñu indiwaat ay compteur comme comme comme comme auparavant nga xamante ne bi yoraa service fraude bi fi nekkoon bu njëkk nekk fi ñu réglementer lépp dans ce pays loolu mooy doxal dëkk mais bu fekkente ne bii bon lu neex waaye def euh, bon là ça pose problème ah moi je vois que pose problème il faut que aussi état bi jël jël jël euh, ay initiative pour réglementer transport bi xoolal par exemple comme ni ñu def euh, ci GIE transport yi nga xamante ne mu ngi dox ci euh, bus yi tata yi mais mën nañ ko def pour taxi yi bu boobaa aussi ñeneen ñi nga xamante ne bii bu boobaa ay dañuy jàpp ne ñoom gars yi dañuy dugg ci ñoom ku bëgg a dugg dugg képp koo xamante ne jàpp nga ne bëgg nga dugg ci transport bi bu boobaa ñu dugal ko mais fekk mu nekk loo xam ne lu ñu réglementé la man daal loolu laa loolu laa ci gis daal. nañ leen réglementé rek problème bi mooy moto yi lu ñu bëri ci dëkk bi jeunes yi ñoo ñoo ñoo ñoo bëri ci dëkk bi liggéeyuñu jeunes yi bu ñu nekkee dëkk bi liggéeyuñu il faut que ñu liggéey noonu la taximan yi bëree noonu la mécanicien yi bëree noonu la ñeneen bëree foog ñu nit ñi liggéey parce que ku ci liggéeyul doo lekk doo naan am déet foog nit ñi liggéey problème bi mooy que il faut état réglementé ko moi c'est ce que je vois nañ ko réglementé kenn ku nekk jël li nga war a am kenn ku nekk liggéey taximan bi nga xam ne dañ ne taxi la taxi normal la am licence yaa ngi dégg chauffeur bi am livret mu am compteur et tout ça ku bëgg a jël taxi compteur jël taxi compteur keneen ki nga xamante ne kii dafay def clandoom ñu xool nan lañ ko defalee clandoom bon mu def clandoom fexe nu mu ci amee dara ki nga xamante ne bi day def cag-cagam ñu xam ne cag-cag la tey ji nga bëgg yónnee sa reer wala sa leen nga yónnee ko kenn ku ne am li mu war am ñoo war a defar ñun ñëpp ñoo war a bokk liggéey ndax loolu mooy doxal dëkk bi waaye kenn ku ne tamit na tegu ci yoon ndax xam nga ne jakartaay ku nekk xam na ni ñuy def fii ci dëkk bi maanaam muñ ci tuddee ko mën nañ ko woowee cek cek waaw ndax dawaleen beeg ña manque de respect yooyu yëpp jàpp nañu ne daal doonul defar léegi daal li nga xam ne moom la ñuy sàkku ñun taximaan yi euh, ñi ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo fi nekkal yoon kenn ku nekk euh, gën a gën a ndax ñi ngi def liggéey sax waaye ku ñu gën a doole liggéey bi ba kenn ku nekk mën a tegu si yoon parce que gis nañu ne Sénégal fii Euh, yo yoon rek moo ñu mën a dimbali ci yenn yi ndax ku nekk mën ngaa càmbar li nga xam ne moo la naqari. na danger yu bëri yu ci mën a am ci xeetu seenu dawalin am na ci ampagaay ñoo xam ne ni du ñu yor permis léeg nga dem ba client la nga signalé fi ngay droité dañuy jàll sa dañuy jàll sa te loolu rek moo indi loraa nga yenn yi te léeg ki nga xam ne fekkewul soog bu ñëwee du xam nu mu demee xam nga loolu daal xam nañ ne ak manque de respect yi diggante nit ak nit. Euh, ndax da ngay gis koo xam ne sax day day gis moroomam di waxtaan ak moom taxaw ci kaw tali bi mu féete ko ci côté mu taxaw di wax oto yëpp topp si moom muy chauffeur particulier bi ak chauffeur transport bi ñëpp a yem ndax léegi dañ souvent dañuy tàmm bu soog amee wala dara sax euh, maanaam dañ naan chauffeur yi te chauffeur yi dafa bëri ndax chauffeur yi mooy chauffeur transport yi ak ñi nga xam ne dañoo yor ay particulier ñëpp chauffeur lañ mais su ñu waree indi benn affaire boo xam ne dañ naan chauffeur yi kon buñ ne chauffeur yi rek ñëpp dañoo war a sénégalais dañoo war a xam ne bu ñu nee chauffeur yi ñëpp wax waxuñu ko ci chauffeur transport parce que képp kuy dawal mën nañu ne chauffeur nga mais gis nañ ne daal li nga xam ne moo yar ak teggin daal euh, buñ buñ ko dee sàmmante rek euh, du ñu am benn jafe waaw ndax doomu aadama li première source ci moom mooy mu yaru waaw boo yaroo di nga neex a digal te lu leen digal di nga ko def waaye nag di di digle di di digle te moom daanaka amul njariñ ndax jëf daal gis nañ ne mooy li nga xam ne moo am njariñ kon nañ yaru rek te nañ am yar ak teggin koo gis def ko sa kilifa eh, di ko def yépp bu ko defee dinañ mën a am li nga xam ne moom lañ bëgg daal jërëjëf.